ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant chaque x di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core x ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di ip boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorer loolu nag la muy tegtale mooy bu la yàlla mayee loo xam ne ñu bari bëgg nañ ko mu taleen bu la ko yàlla mayee da koy téye ci fulaak ci fayda bi ci topp mooy ngeen di participer ci daayira yii nga xam ne ci kër gi la soosoo nit du wëndeelu nit ku nekk daa am ab gét fi ne ni ma leen ko mën a misaalee maanaam tey buñ ne boo boo jëlan sa sa sa xaalis bu bari suul ko ci ab ci ngeree ci àll ba suñ jëkkee bàyyi ñu ne ngeer ya tàkk na gan ngeer la sa di dem ga nga soloon sa alal na tàkk loo mën a am ci sëñ Tuubaa sa bunt ci Cheikh Issa dong la mën a jaare daayira yii am ci àll bi te aju ci kër Cheikh Issa gi ak ku sant jenn ku ko mën a jiite dee leen ci participer di ca wuy ji di jàppalante ak ñoom di diisoo ak ñoom di waxtaan ak ñoom te bañ koo négliger fu ngeen gisati ko sant jenn di sos dara na ngeen xam ne loolu mooy priorité ci yéen bu noppee leen lu ngeen def ngeen di ko ca def li ñuy jëf ci kër sëñ Tuubaa it ngeen di ko jaarale ci bi ci seen kilifa yii ndax bu jëkk looloo amoon léegi kay la jamono xew lu ñu wootee nit ñi fa lit dem jiitu jëf sëriñam waaye magi Cheikh Issa moom xamuñu woon loolu daanañ ànd ak sëñ Issa fii dem ci sëriñ Touba bu ñu àggee Cheikh Issa dong ngay nuyoo ñu sukk di ko xaar bu jógee ñu jël ay dàllam tegal ko topp ci ginnaawam musu ñoo wutub barkeelu musu ñoo Cheikh Issa rek lañ xamoon loolu nag noonu liñ ci war a royee ñun waruñoo jiitu suñuy sëriñ ndax sa kilifa boo ko jiitoo mën ngaa fakkastalu waaye moom boo topp ci ginnaaw mënoo juum léegi kon leen war a def mooy tënku ci njabootu Cheikh Issa gi déglu leen kenn ku ne déglu kilifaam suñ ne jóg leen ñu jóg buñ ne dal leen ñu daal lu yëngu rëy rëy rëy boo déggul njabootu Cheikh Issa woote saytul ba xam ñoom nuñ cay doxee nañ cay doxee rek nga xool ci ñoom boo ko defee doo juum ndax woote bu fi masa buñ fi masa woote ci yoonu murit ak liggéey ba nu mën a toll seen participation dem na ca te participation booba li tax seenu ñàkk war caa jaare dafay tekki day wecc jëfi Cheikh Issa ci Serigne Touba te Cheikh nag buy dajale jëfam di yóbbu kër Sëriñ Touba seen jëf di ca bokk ndax loolu mooy ak njabootum lañ ko déggale wax nañ ci këru njaaram gi mos na yëkkatilu dara bi mu ne yëkkati leen ma leen njabootu Cheikh Issa ñu ñi jóg njabootu Cheikh Issa toog ñoom kenn jógut dafa woolu Cheikh Issa bi mu ko santaane Cheikh Issa fi tasu rek ñoom ñëpp ñu jóg mu ne ko ak saa nii la de hmm. ak saa Issa nii la de mos naa boole mag ak moom pour mu ànd ak Cheikh Issa jenn ñu dem ba ci yàgg mu delluwaat fa Serigne Touba sëñ bi laaj ko ni ko yow de daa mel ni mosu nga fee ñëw dégg ngeen sëñ si alim di ko nettali mu ni ko waaw mu ni ko lu ma la waxoon mu ni ko da nga ma waxoon ni ma boo demee nga ànd ak Cheikh Issa Diène mu nga ma boole lan daal mu ko loo fi wutaat xanaa xamu ni datt boobee du liis du damm du faq datt bu du liis du damm du faq nag boo ko amee da koy téye téye ko daal xam naa ne defar suñu jëmi bopp yi fexe ba nekk ay nit ñu way di sol col gu yiw di sell di julli waxtu juróom di jàng xasida tey liggéey nag tey liggéey waxuñu it njàngum xasida moo xam ne da nga koy defub liggéey rek nooroo koy dem déedéet waxuñu lool de ab dog ngay wut ab murid day wutub dog bu muy jaamu borom waaye liggéey bi xam ngeen ni toog ni ngañam ngañam yi jàng sotalu lii de sotalu lii bu leen kenn nax jàng sa dogub alxuraan jàng xasida la nga man xëy liggéey ndax sëñ Tuubaa mos na koo laaj ni ko Isaa mbaa amoo ci mbooloo mi ñu nanguwul a liggéey mun ko su ma ko amee bari lewu ma ko yéen ñëpp na ko fi boo ko amee séppi ko sànni ku nanguwul liggéey du jariñu rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sunu mbokki taalib yi nga xam te ni ñoo ngi nuy ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen baax di leen siyaara di leen siyaara tamit ci pàgg bu màgg ba teel bi nga xamante ni mooy njennal lëgën di pàkkub maam Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu ñu ñëw na tey bis bii nga xamante ni ci ren fas yéene ubbi jumaa ju mag ji nga xamante ni bokk na ci jumaa yi nga xamante ni Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yàlla sunu borom jagleel na ko waaye ñu fayee ko sangam bu tedd bii tamit nga xamante ni kenn la ci njabootu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul muy Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu mu liggéeyoon jumaa ju mag ci njaareem liggéey leen ko Sëriñ Tuubaa waaye tey jii biñ ñëwee ba ci jamono jii tamit benn taalibeem bokk ci njaboot gi ñëw liggéeyal ko fi jumaa ju mag ju toll nii tey jii nag ñu jàkkaarloo fii ak sëtub Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu di sëriñ Youssoufa Diène moom Cheikh Abdou Salam Diène moom maam Cheikh Issa Diène radiyallahu taala kon sëñ Youssou dañ laa bëgg a jox kàddu gi bu ko defee nga gën euh, soññiwaat bu baax ci taxawaayu jumaa ci biir dëkk bi ak Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu taxawaay bi nga xamante ne amal na ko ci jaamu yàlla sunu borom subhanahu wa taala ak ni mu ci doon soññee taalibe yi ak tey jii tamit liggéey bu mag bi nga xam te ni tey yàlla sunu borom dogal na mu taw ci njaboot gi ñu war koo liggéey ci soññe gi ci dëkk bi nga xam ne di njënd la gën loolu ciy jox sëñ Yuusufa Jenn moom Cheikh Abdou Salaam bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di am mbégte bu baax ci bis bi nga xam ni bis bu màgg la ci nun waaye bis bu màgg la ci diine ndax euh, ku wax diine wax julli euh, ku wax julli wax jàkka ku wax jàkka wax juma waaye it ku wax sëriñ Touba wax alquran waaye ku wax sëriñ Touba wax juma euh, waaye ku wax juma tudd Serigne Touba mënoo ñàkk tudd Serigne Issa Diène kon loolu tey mbégte la mu rëy ci nun ñu taxaw ci njenne lagan muy barabu boppam bi nga xam ni ah, moo ko sancaloon boppam di fi tarbiya di fi yare di fi wone la Serigne Touba defoon ci moom tey ñu taxaw fi euh, ci jumaa ju mag ju tol nii ju réye nii ju taaroo nii te ku ne xam na ni lislaam rek mooy yelloo lii waaye ku ne xam na ni it yoonu sëriñ Touba wii euh, saa suñ xëyee yu mel nii di fi feeñ waaye fii mu feeñe tey nag day barab boo xam ni euh, bu mat a bàyyi xel la muy barabu Serigne Issa Diène muy koo xam ni Serigne Touba da ko bàyyi woon xel ci lépp euh, waaye wane woon ko ci kanamu ñëpp ndax ku ne xam na ni liggéey lu jumaa teg ko cib loxoom loolu tey bu lii amee kon xam nañ ni du asaar la sëriñ bi defoon ca njaareem lii moo koy leeral tey lam jëloon jumaa ji joxoon sëriñ Aïssa teg ko cib loxoom lii moo koy leeral waaye li may leeral bis bu set di wane ni sëriñ Aïssa day koo xam ni daa màccoon jëm ci sariya lool waaye ak taalibeem lëm ko ba ñu baree bari jàpp ne ci xaqiqa dong la doon dund mu mel ni daa boole woon ak sariatul mutahara ak xaqiqatul munawara loolee nag gën naa feeñ tey jii nga xam ni léppam xam-xam la woon ak diine ju set wicc dëkkam bii nag tey euh, lii moom day mbégte ci nun ndax dëkk bii ci la sëriñ bi daan waxe ni tegul ci yoon wi mbaa nga alma borno bi loole nag kon tey bu ñu fi taxawalee jumaa ju toll nii mën naa ni Serigne Xeesa day ñun mënuñu koo faye dara waaye ku ko fekk fa mu nekk am na mbégte ci lii ndax lii rek moo nekkoon bëgg-bëggam mu amaat leneen lu nekk ci wetu jumaa ji muy daara ji nga xam ni sëtam yi teg nañ xeer wi taxawal ko fas yéene mu jëm kaw fas yéene mu gunge jumaa ji ndax ku ne xam na ni jumaa daa am lu koy gunge ndax jumaakat ah, ña koy jiite da ca di ca jullee day fekk ñu xam seeni farata ak seeni sunna loolee nag la tax ñu bootal ko daara ji mooy bëgg ñi fi jullee si xam nan war a jullee ak nan war a taxawee ci jullikaay ndax loola moo war a jiitu kon tey bu ñu taxawalee jumaa ju toll nii bootal ko daara ju rëy ju toll nii ji ñu teg xeer wi alhamdulilah yaakaar mën naa am bu baax a baax te sax nag am na te sëti sëriñ Isaa yi day ak xalifaam bu baax bii bu tedd bii nga xam ni liggéey na liggéey bu rëy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 ak bitim réew. ndax am lépp tawfeex sëriñ bi mën a ko may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi.